tey jii bu ñu fi teewee ambassadeur bi yabal fi ay ndawam mooy que dañu am coopération bu ñu mettre en place formation étudiants si gars yi ci cuisine thaïlandaise te loolu dañ ko def euh, après un choix sur plusieurs établissements te loolu dañ ciy gërëm suñu partenaire stratégique muy CACSIP ndax CACSIP moo dox lépp moo ko lijjanti ba mu ba Thaïlande ambassadeur Thaïlande ñëw ni réek SIGA loolu nekk na lu xam ne kontaan mais li ñu ko gën a may aussi mooy que SIGA aussi au niveau de la restauration dañ ciy def ay résultats yu baax boo xoolee daw euh, examen d'état CAP SIGA mi ngi def 100 pour cent école Sénégal yëpp SIGA rek moo ci def 100 pour cent waxuma 100 pour cent mais même centre bañ doon defee école ba fa nekkoon sax SIGA ci boppam moo ñëw nekk Sénégal parce que les deux premiers du centre ñoo ko génnee kon tey ji bu ñu choisir pour ñu porter ce projet day nekk loo xam ne kontaan nañ ci mais aussi c'est juste quand même euh, juste ce ñu rendre waaw. choisir école bi parce que école d'excellence, excellence la boo xam ne soo résultats yi muy def au Sénégal ay résultats yu baax la mais aussi école boo xam depuis dix ans Katsub daf koy jàppale moo tax ñu bëgg a fi promotion euh, euh, cuisine thaïlandaise boo produits yi nga xam ne moom xel di utiliser presque mooy produits yi ñuy Sénégal ak Afrique muy loo xam comme directeur bi muy wax transfert de euh, de technologie dafa mais aussi dañ leen di jàppale xale suñu paree dans deux ans dañuy am CAP ak BT dinañ def projet boo xam ne dinañ mën a jàppale euh, mais aussi ambassade bi dina fi ay bourses bourses yo xamné peut-être dina am ay ndaw yo xamné suñu paré si ga mëna dem jàng ji Thaïlande li mo tax dal ñu jog pour jappalé école bi. suñu projet yépp li ci jitu fi nek ren ji moy culture bi dañ koy jaarale ci culture ndax fan yi ñu génn rek organiser nañ promotion de la boxe thaïlandaise bo xamante ne bii mooy bu njëkk buñ ko fiy duggal li ci dess nak moy yenen yi ay transfert de technologie ak yoyu te ñu ngi jëm aussi fi ak at yi di ñew ñu jëm a ay partenariat yo xamante dañuy jappalé ñi bay ci dëkk bi ñi bay ceeb parce que Sénégal xam nañ ni dañuy consommer ceeb lu bëré bëri li ci tagu nak moy euh, am nañ projet yo xam yag nañ ko fi def comme euh, wa Kër Moussa amna ay yuñ leen fa installé ak ay programme yu ñu fa def yo xamante day permettre ñuy sécher di wowal fruits yu ñuy am ci Sénégal ngir moytu yàq bi ba pare jàppale leen pour exportation ak li ñuy liggéey fii ci senegal